lu nuyoo rafetlu ni ngeen di àndee ak suñu bi ngir informé wu lépp rek lu xew ci réew mi ak ci bitim réew kawteef la ñuy wax ab mara sax wala faux marabu lañ ko mën a duppe moom nag daal dinay jógee Sénégal rek dem foofa ca diwaanu Gambie waaye nag liñ fa nemmeeku mooy moom nag dafa daal di ëmbal rek juróom-ñaar ci ay xale jigéen ci loolu nag mu dal di nekk lu doy waar gannaaw ba nga xamante ni sax am na vidéo buy circulé ñoom rek ñuy def témoignage di wax ci jëf ji mel ci ñooñu sax jigéen ñi ñu ci jàpp ñoo xamante ni am nañu borom kër ak ñi nga xamante ni sax ay étudiant lañ loolu nag am na ci sax ay commerçante Euh, ñoo xamante ni ñoom la def jëf ju ni mel gannaaw ba nga xamante ni sax euh, ñoom dañoo ñëwoon ci moom rek ngir mu ñaanal leen waaye nag mu daal di euh, détourner seen xel def leen jëf ju ni mel waaye nag ba nii kenn gisu ko kenn tegu ko bët. kii di Maty 3 Pommes daal dina génn rek def fa vidéo lool nag mu ngi jëm ci coowal kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak li nga xamante ni sax moom moo di coowal massage fii ci Sénégal moom nag Maty 3 Pommes gannaaw vidéo bi nga xamante ni def na ko muy waxaa rek ne am na keneen koo xamante ni sax Aïcha lay wuyo mu ne sax tur boobu dañ ko koy wooy rek waaye lool du turam dëgg waaye du fësal li nga xamante ne moom moo di turam dëgg muy ne sax ne kii di Ousmane Sonko dafa dal di rek nekk ak xale bu jigéen boobu te teewul sax mu ngeek ñaari mon jabaram mom nak muy fessel rek né ci période élection locale yi ki nga xamante mom modi Ousmane Sonko dafa jël rek appartement foofa ca Sigi Ziguinchor xalé bi di Aïcha lool nak muy fara rek mom Ousmane Sonko di nek fofu lool nak di nek ay révélation yu doy war yo xamante ak di Maty Trois Pommes dal dina génn def ko ci njital Pastef bi di Ousmane Sonko des ci Ousmane Sonko momu ba mom nak gannaaw ba xamanteni ni sax nit ki euh, suba ñu tuddé ko mercredi de tous les dangers lool nak nek ab manifestation bo xamanteni ni rek fas yéene nañ ko amal ngir rek daldi di suñu démocratie ci lool nak liñ ci mëna japp moy Ousmane Sonko moom gannaaw ba xamanteni daldi ni daal taskatu xibaari euh, muy wax sax ne moom soxlawul dara ci nguur ndax kat euh, salaire bi nga xamanteni sax ñu ko ko doon fay doywu ko dara da koy joxewaat rek du carburant du dara lo xamanteni soxla na ko ci nguur lepp lu muy def rek koy def te yàlla tax waaye moom Ousmane Sonko rek yokku ci ne gannaaw manifestation bi nga xamante ni kenn du teye ñu daal di koy amal moom sax muy fësal ne way juróom bu jigéen daal dina koy woo di ko wax rek ne ko ndax Ousmane ñibbiseego fii ci diwaanu Ziguinchor waaye moom nag li mu wax waay jur bu jigéen bi rek daal ne ko tànk manifestation bi jeexul du ma ñibbisi ndax kat lii ñuy xeex ni pour askanu Sénégal yëpp la moom Ousmane Sonko sax kàddu yooyu la daal di fësal gannaaw janno ak taskatu xibaar yi ci loolu nag gannaaw leen rek lu ñu mën a nemmeeku ci match boobu amoon na fa ay altercation loolu nag mu ngi doxoon ci ñi nga xamante ne ah, moom moo di gendarmerie ak police mu nekk ab jàmmaarloo bu métti ah, ci loolu nag ñu mën a jàpp sax ne benn lieutenant ah, nekk sax ab élément GIGN moom moo daal di jote rek ak commandant GMI ci loolu nag liñ ci mën a jàpp mooy ki nga xamante ni sax moom moo di lieutenant GIGN bi. dafa daal di rek bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa police sax dafa daal di violer rek liñ naan dispositif bi ci loolu nag moom gannaaw ba nga xamante ni sax élément gendarmerie boobu dafa bëggoon a dugg rek à l'intérieur ci loolu nag ki nga xamante ne moom moo di euh, policier yi daal di koy empêché ci loolu nag mu daal di sax jote ak ki nga xamante ne moom moo di commandant gémi bi daal di koy dóor rek bant ci bopp ba moom nag mu daal di ci jëlee ay gaañu gaañu ba ñu yóbbu ko ca l'hôpital ba noppi daal di confisquer rek li nga xamante ni sax moom moo euh, téere bi ak téléphone kii nga xamante moom moo di euh, jiital GMI euh, ci euh, loolu nag liñ ci mën a jàpp rek mooy gannaaw ba nga xamante ni sax na naroon na jur coow lu rëy ci diggante gendarmerie ak waa police ci loolu nag mën nañ wax ne daanaka problème bi daal dinañ koy régler ci na mu gën a gaawee ndax kat ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy élément bi bi mu nekk sax ab corps boo xamante ni ñoom ca police la fare ak ñi nga xamante ñoom ñooy daal di récupérer rek li nga xamante mom moom di téléphone ba ak beere bi nga xamante ki di lieutenant GIGN bi dal dina koy confisquer won des ci matchu Sénégal yi ba tey ki nga xamante ne moom moo di Sadio Mané moom nag gannaaw ba nga xamante ni c'est une fierté nationale di amal liggéey bu am solo fii ci euh, équipe national euh, moom nag gannaaw ba mu defee rek entraînement ma bu mujj euh, daal di nay rek dajeek ab fansam ci image yi fans bi ngeen di gis noonu mu daal di kottu Sadio maane rek di jooy wane mbëggeelam ak cofeel gi nga xamante ni am na ko ci kii di Sadio Mané waaye nag Sadio Mané xaaru dara ngir rek daal di jël numéro fans boobu noonu ngir rek. rek contacté ko ah, ci ah, loolu nag moom la ñuy gis noon ci image yi moom mi nga xamante ni fan Sadio maane la ah, dal di koy kort ak drapeau Sénégal bi nga xamante ni sax moom la sol wanewaat cofeelam ak mbëggeel bi nga xamante ni daal dina koy am ma ci doomu Sénégal bi di Sadio maane beneen coowu mariage muy Sadio Mané ak ki nga xamante ne moom moo di Zeyna Ndour loolu nag gannaaw wa coow li nga xamante ni juróon na ko fi waaye nag information yu wér yi nga xamante ni am nañ ko dara amul seen diggante ñoom ñaar marié wuñu tey marié wuñu ci loolu nag ñu mën a jàpp rek ne ki nga xamante ni sax moom moo di Zeyna Ndour gannaaw coow li nga xamante ni judd na ci digganteem ak Sadio Mané ki nga xamante ni nag moom moo di yaay ji di Viviane Chidid li ñu nemmeeku rek ni ki démb ci compte TikTok am muy publier rek ay vidéo ak ay photo Zeyna yu rafet lool moom ngeen di gis ci yi noonu mu nekk ay photo yu taaru yoo xamante ni kii di Viviane Chidid ah, daal dina koy publier rek mu nekk ay photo Zeyna Ndour gannaaw coow li nga xamante ni sax juddu woon na ci diggam ak kii di Sadio Mané

Adversité, ndax kat match bi ñu génn muy Sénégal ak Bénin dañoo nemmeeku rek ne amna ay supporters yo xamante ñu ngi yoron rek yi laser ci kaw ci bi di ko tek jour lool nak nag Aba rafetlu ko dara gannaaw vidéo bu mu def rek di sensibiliser ñi nga xamante ñom ñoy def jëf ci ni mel. jeexalee ak kii di xamante ne moom moo di maire bu waaye di ay dara moom tamit daal dinay feelu Ousmane Sonko rek ci li ni mel loolu nag gannaaw manifestation yi nga xamante ni fas yéene nañ ko amal ngir rek sàmm suñu démocratie ci loolu sax moom maire bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara daal dinay yëkkati ay kàddu rek di wax ne sans autorisation wala avec autorisation dinañu amal rek li ni mel loolu nag bokk na rek ci daal di sànni xeer ak ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di Macky Sall moom nag muy fësal ne kii di Macky Sall amul vision Euh, loolu nag bokk na rek ci yenn ci ay travaux yoo xamante ni sax euh, daal dina koy euh, door foofu noonu ca diwaanu Diamniadio moom nag muy fësal ne travaux yi sax ki ko njëkke woon di ki fi nekkoon njiitu réew di maître Abdoulaye Wade kon nag moom dafa jàpp ne ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall amul benn vision te sax dafa nemmeeku ne ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall képp rek kuy liggéey ci wàllum administration te nekkoo ci wetam dalay jéem a gàllankoor waaye nag bu fekkente ne ci wetam nga nekk rek mu gën la dooleel ngir nga jàppale ko bu baax ci politique bi muy def moom Ahmed Aïdara ay yile kàddu la fësal gannaaw muy janook taskatu xibaar yi